الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بكي نبوك سنت برم سبحانه وتعالى سيرنا من بين برغن ولا جام بدون مم نوانجي بالو أق نيب تدلين بال أق تينيان برم سبحانه وتعالى مبوك نجيجل نيب بكم نيوم لنين دوكل ci bis bu mag bi ñu génn muy bis boo xam ne bisub sant la woon te borom bis bi woote woon ko kenn ku ci nekk def ca la nga man ak la nga mënut ngir yàlla ak jëmmi birom bis bi yàlla na borom bi fayal ñu te ñu yàgg ko fekke ca lépp an na ngërëm ca yàlla yi kase doo tax nag bokk sunu xutba tey mi ngi jëm ci aljazaau min jinsil amal mooy nit ku nekk la nga jëf moom la la yàlla di fay li wolof di wax jëf jël lu waay jëf yaaka moom bokk yi xam ngeen ne kenn jëfalul kenn dara kenn ku jëfal kenn dara kenn ku nekk sa bopp ngay jëfal mën nañoo jàngat tuuti rek ci biis bi ñu génn ki ko doon jëf ci ay coono ak ay metit la ko doon jëfe ak ci ay natt waaye mu muñ lépp ba borom bi faye ko tey jii li mu ko faye foofe nag bokk yi lañ cay njëkk jàngate mooy am na baatu wolof bu wolof di wax waaye baat bu yàqu la njariñ loo fekke wolof bu yàqu la njëriñ dëgg ka ko sos du ko fekkee léeg-léeg lépp loo fi gis tey jii mu am njariñ boo xoolee ñi sos loola fekkewul njariñ la Tuubaa nii mu mel ndax sëñ Tuubaa mi ko sosoon fekk na ko déedéet ca lim fi jaar bariwut ca moo ko sos pénc moo dem it na pénc ma développé borom pénc ma ca boppam moom ma tax ñuy tudd ñu di ko tudd fekkewul ndam développé barke ba fa nekk nit ñi di ko dundee moom fekkewu ko te lépp ci barkeem lay doon bokk yi kon njariñ loo fekk wolof bu yàqu la nit day def loo xam ne ëllëg a tax mu di ko def waaye lu jëmi boppam nit day jëf loo xam ne moo xam diine la koy defal moo xam lu mu ko mën a defal waaye moom jëf jëmi jëf boppam taxut ëllëg a tax ca bu ëllëgee la cay génn ci njariñ du ko fekk loolu kon bu buñ jàngatee jëfi Cheikhul Xadim ak jëfi mag ñu baax ñi fi jaar kenn ko ci nekk tey jii la la sa waa kër di jariñoo ci sa barke la amee ca yoo fekk woo yaa ngi ci biir suuf te kuy tudd tudd la kuy waxtaane waxtaane la te ñoom ñooy bu dee bu dee ay kilifa la ñooy lekk at diije ñooy def lépp te ca barket barket kooka moo tax ñu di ko def te moom ma sosoon barke ba bokk bokk yi fekkewul barke foog wut maanaam njariñ li nga xam ne moom moom la moom la sëg yeeg doom yeeg ñeneen ñi di de kon njariñ loo fekkee baatu wolof bu yàqu la sama boppam ma la gën a lit du bañ naa la tamit ba baatu wolof bu yàq bu yàqoo boo tey nit ki yàlla da koy gënal boppam yonent bi gënal ko boppam sëriñ bi mu sukk jébbalu gënal ko boppam doomu aadama yàlla da koy gënal boppam yonent bi gënal ko boppam sëriñ bi sukk jébbal gënal ko boppam la yonent bi sans sa waxu Seydina Ali ne ko lu feeg demu leen ba ma gënal leen seen bopp rek seen imaan des na loolu mooy li am li war a am waaye sama boppam ma la gënal du bañ naa léegi leen gaa yi nag kenn ku ci nekk da ngay dóor sa dënn man sama bopp ma gënal ku ne ku dul man nangam faalewu ma la nangam nangam yooyu moom mi nga am ci àdduna bi boo ko gisee nit it mu mel na ne yooyu wax la ko rek wala boppam ndax kenn ku ci nekk dëgg la sa bopp am nga ci responsabilité bu nekk ci yow te kenn ku ci nekk boo sa ñoon dooñ sa morom doo sa morom kenn ku nekk ni nga mel bu dee lu baax moo la gënal li keneen mel kon nag dund bu rafet rek moo ci am bokk yi kon jëf jël lu waay jëf yaa moom kon bu ñu jëf jël nag waay jëf yaa moom li ñuy jëf kon na doon jëf ju sell ju baax ju ànd ak yéen a ci yàlla rekk tax te yàlla képp tax bu kenn ne diw moo tax may jëf déedéet muy ku mën doon ci àdduna bu bu kenn wax diw moo tax may jëf ndax diw mu tax ngay jëf bu ëllëgee moom mer la dootoo jëf nit ñi moom ay couleur lañu yor bariwul ñu yor benn ñi ay couleur lañu yor bariwul ñu benn kon ko ci mën doon nga diko jëfël la nga koy jëfël na yàlla rek tax so liggéey bu la wone gëna nga jublu yàlla mi nga doon jëfël waye bu fekkee ne moom ngay jëfal bisa ngi ñëw mu wax la lu la metti ci sa xol jëf ci dal fay dagg loolu baaxul bokk yi jëfël rek gir yàlla lolu mo ali am solo kon al jazaau min jinsil amal hikma bobu nak nga xam yàlla def nako ci al jazaau min jinsil amal mo xam bu de lu baax la lu baax la la yalla fay bu dee lu lu bon it lu bon rek nga cay am moo waral jaam bu ci nekk war ngaa xam ne yàlla moom bokk na ci ay jukkoom suñu borom ko lewet la ku bëri yërmaane la ci jaam yi kon ñun ñëpp li ñu war a xantawoo mooy li ñuy jëf mu doon jëf ju sell ba noppi ca doon baax ca maytandiku bépp jëf boo xam ne day war a ëllëg mbugalu yomal xiyaamal akbar moo tax yonent bi sallallahu alayhi nee na woon ñi nekk ci àdduna di yërëme su àllëgee yàlla dana leen yërëm kon na ñi ci kaw yërëm leen kon doomu aadama nekk bokk na ci jëf ji gën ci jëf yi muy yërëme waaye ko ëpp doole rek wan ko ko ku ëpp baat wan ko ko loo loo sañal nit rek wax ko ko doo xam fa koy waxe ak lu mu mën a doon tànjang ci digg bi bu dee ku koo xam ne am na fit na yow tal na dana naan ko tànjangaan rek su ko defee ñu ne dafa xamadi ku fekk na xamadi ku yaa xamul fa ngay waxe sayna Ali dina woon fa lay de kullu ma yu'lam yuqal du lépp lu xam rek wax ko وليت كل ما يقال حان وقت دولي بولوس قام وقت وقت وانك ورا وقت جد وليت كل ما حان وقت وقت وحدر آلو دولي بولوس قام وقت وقت وقت وقت وانك ورا وقت جد كون نيت كده فورا نيلا نيت كده فورا رانيلا كون ديلن يرمي كدول يرمي يالا دولا يرم يالا نينا دين تسوف يرم لين ديلن أم يرم سين بير نحن نيت كاو يرم لين لولي موي تخيب ndaw ñi ci boppam mën a jox cëriñ mag ñi mag mën a yërëm ndaw mag mu yërëmul gone gone du ko jox cër wajal saqiru naa yu wàqarul kabir waaye nag wajal kabiru naa yu aynu li saqir kon ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk am nga ci wàllu googu nga doxal bokk yi jëf ju sell nit du ko yeexe jëf ju baax nit du ko yeexee soo waree jëf lu baax boo xëyee suba rek jëf bu loxo may xaar ba ngoon ndax ruux xamul kenn fu mu wadde waaye bu dee ab safaan mooy te nekkul bañ koo jëf waaye bu dee jëf ju sell moom bokk yi na ko teel a jëf ca fayuk àdduna ci jëf ju sell bi ci jiitu mooy yow ma koy jëf yàlla mooy wëlbatiku def xoli nit ñi ñu sopp la yàlla mooy wëlbatiku def xoli nit yépp ñu jublu sopp la képp kuy jëf lu baax lu baax loole di tasaaroo ci àdduna bi fa ngay njëkk fa ngay njëkk xam ne suñu borom mu na sa jëf yàlla moo jël xoli doomu adamay wul ba diko ñu sopp la foto toog ñuy wax ñu ñu la ñu di la waxtaane naan diw de limi jëf ci lu baax limi def lu baax limi wax lu baax kon lool rek bokku na fay fay fay aljaza min amal ci lu baax ci aduna lay tambalé ndax lu war lool bokki xoli yalla ko mom xoli sun borom subhanahu wa taala moko mom ba nopit mo ñu gëna jégué ñun ñëpp sun buumi xol yi mooy seet nag xol bu ci nekk la cay nekk ci cofeel ak ci mbëggeel la ciy nekk ci cofeel ak ci mbëggeel moo waral léeg-léeg nga gis nit ñëpp jublu ko ñu naan dafa njabartu njabartuwut yàlla yàlla defal mu mel ko noo xam ne doomu aadama yi ci boppam wëlbatiku sopp ko te yonent bi sansa wax na ci xadis ne nit ki du ma jege jege jege jege jege du ci xadis xutsi la ba ma mujj doon sopp ko ne bu ma ko soppee maay mujj doon bëtam ya muy gisee doon loxoom ya muy jàppe doon tànkam yi muy doxé dégg nga su ma ñaanee ma may lu mu waxit ma def ko ku toll foofu yàlla kay faaw doomu damay sopp la te ne damay njëkk yéen say naa ji béy na diw ak doomi diw ak diw man yàlla bëgg naa ko na ngeen wul ci àdduna bépp na diw bëgg naa ko bu ko defee ñëpp sopp loolu foofu la fay ad jëf lu baax di tay mu tàmbali ci àdduna al jazaau min jinsil amal moo tax suñu borom wax ne hal jazaau ihsan ila al ihsaan maanaam istifhaamiya la هل لاجنا نينا ندخ لو باخ لو باخ دونغ موكاي فاي خم ني لو باخ لو باخ رك كاي فاي كون بوك ني نلين جيما ساخ تي لو باخ تاي ديف لو باخ غير يالا دونغ سبحان وتعالى تخ واي كيب كو جيفل لو نياو يالا دراي فاي رك لا غاي لا لا غاي ديف من عمل صالحا فلنفسه ومن اساف عليها كو ديف لو باخ سا بوب كو ديف لو نياو سا بوب amul kenn ku naan limay def sama baye tax ma diko def bu dee jaamu yàlla gii sa baay yaag sa baay yéen a ci yam julli geeg war geeg ak géeb daf lu baax yaag sa baay ci yam yaag sëriñ bi nga sukk jébbulu yéen a ci yam sëriñ bi sax lu mu war a fu mu la gisee soññ la ci kon lu baax li moom yaag sëriñ bee ci yam yaag sa baay ak sa yaay yéen a ci yam yàlla leen ko sant kon li yàlla santaane nit ki da ko war a xam xàmmee ba bu ko baayam digalu sëriñ bi digalu ko mu jëm te teg tànkam waaye damay xaar sama baay wax ma ko ca loolu ak ak dofe bokk yi damay xaar sëñ bi digal mako ci may lu baax lool ak dofe la yaa sëñ bee ci yam li nga yem ak sëñ bi nak booy bul xaar sëñ bi digal ko li nga yem ak wajur bi ci lu baax bul xaar wajur bi def lako defal rek kon lu baax mom ñëpp ci yam loolu ñu bàyyi ci xel kon bu sun borom waxé ne lu rafet lu rafet koy fay mo wara ñun ñëpp ñu wara a góorgóor def ci lu fay def def def lu rafet ñi nga xamni ne dañoo sax ci lu rafet ba liggé yàlla dañ leen fay ci rafet ba nopi am ndolante moom moom leen jox mo tax yonent bi sansam nee na woon laa yaatil xayru illa bil xayr lu baax lu baax dong lay dikkee ñi nga xam ne loo nekk ci àdduna di def lu baax yonente bi sax nee na soo àllëgee lu baax dong la ñu am ñu ne ci àdduna di def lu bon ak caay-caay bu ñu ko tubut bu àllëgee lu bon ak caay-caay rek leen yàlla di fay yal na ci yàlla musal bokk yi bépp jëf boo ci àdduna rek am na fay am na fay bu dee lu bon am na fay bu dee lu baax it am na fay kon na leen góorgóorlu ci jëf lu baax ca li ñuy jëf ci lu baax rek ñu def ko ngir yàlla suñu borom nee na man amila salihan min zakarin aw unsa ku jëf lu baax moo xam góor la moo xam jigéen la ca fekk bi mu koy jëf aji gëm la suñu borom nee danañ ko dundal dund gu teey te bu àllëgee des na ko fay la gën rafet la nga xam ne moo gën a rafet kon nag li baax ak li bon nit ki da ko war a xàmmee te kiy jëfit li ma ko wax ci ngeen ba na jëfa ngir yàlla bu kenn jëf ngir doomu aadama lépp ci jamono nag moom jëf ngir doomu aadama moo ëpp da gis ci mbooloo ñu laaj nga joxe ngir mbooloo ma ca buñ la fekkoon si kër laaj doo ko doo ko joxe lu bari am na fi kon nit ki li muy def su wéetee de ak gu wéttili ko mu ñoom ñaar ñoo ci war a yem fii jamono toll nag kuy dox kuy jëf ngir nit lee nga bàyyi ndax problème yi moo bari ci boppi doomu aadama yi xalaat yi bopp ci ne ci boppi doomu aadama yi léegi léegi mu mën léegi léegi mënatu su boobaa nag bu fekkee ne yow amoo xam-xamu xool loolu wala gis loolu soo liggéey kon da ngay jëf doo ko jëf gis nañ ñu bari ñoo xam ne bu ñuy ànd ak nit di ko jëfal bu ñu amee benn as diggante rek ñu bàyyi loola yàlla taxatul naa Abubakar da daan wax ne moom de balaa am lu ko neex ki nga xam ne tey jii dem na ba bako ba xamatul ci lum nek su allegé bu buy seeti wala buy joxe kooku lay njëkk jox xana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak yahud bi jangal nañu ko ko xamne bis bu ne nga dik xep mbalit ci buntu kër yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am ñetti fa ñëwo yaronte bi jële laajte daanaa mu ko dama gisatul mbalit mi daan xep sama buntu kër ñu da ko dafa tafa tawat mu dem seeti ko loolu moy an baax mu dem seeti ko ba nga ko seetee ci dug ci l'islam sëñ bi nit ki boko bëggé mom ci ko ko ko bu mu nekk doo ko top ci dukkaam ci melokanam léegi nag boo ma ko sabajee ma sabaj la ko moo am boo ma ko defee ma def la ko loolu kon kon kon fan la aljazaa ihsaan ilal ihsaan di nekk fan la aljazaa min si amal di nekk kon nañ leen góorgóorlu ci lu baax cay def lu baax cay jëf ca yàlla rek ta bu jëf ngir sëriñ sëriñ bi wala baay bi wala yaay ji wala doom nañuy jëf ngir yàlla nañuy jiital yàlla ci jëf yi sëñ Tuubaa mii yaakaar kat bu ngeen demee ci ay mbindam li muy jàngale mooy waamal liman ida amilta lil tari daaw booy jëf na nga jëfal ngir ki nga xam ne saa yu la gërëmee nga am gërëm mu yàlla nee na bu dee doomu aadama moom bu sànj dikkee rek mu bàyyi defaree bokk yi moo tax yonent bi sansam wax ne képp ku ab jullit yàlla dana la suturaal ëllëg nañu suturante te bàyyi bu ñu sutura loo xam ne nit ki rek na ko daj wax ko yàlla nëbb na ayib bi doomu aadama yu bari bari na ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi comportement nit ñi di leen naw waaye ayib bu yàlla wuñu woon seen ayib ñépp daw leen yàlla nee na ku yàlla suturaal danga su borom nee na ku suturaal nit yàlla suturaal ko fa dum ala nasri aybi nafsika wa daawi wa tub li xaw fi rabba ko amul sikk amul ñépp waaye ñépp am sikk naari gànnaari bi bi bi di sëñ Tuubaa am na waaye da xoolal la naar ba wax wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi ne si kër sëñ Tuubaa mooy jaamu boromam wa naful waraa fi sa biwa masaa yi jëriñ nit ñi subaa ngoon kooku kooku am na sikk waaye sikk subaax la am kon koo amul sikk amul kon nag nañuy suturaante yàlla yonent yonent bi nee na ku suturaal fii ci àdduna bu ànd ak yàlla suturaal loo xam nit ki waxal ko ko xool xool li suturaam doo xam foo ko koy xolle doo ko koy waxal lu la neex wax ngir ak sañ-sañ bu yàlla dana xawi sa sutural ku am jafe-jafe nga mën koo dimbali ci jafe-jafe yàlla yonent bi nee na ku nit am jafé jafé dik ci walof nga mën koo saabara soo liggéey suñu borom na sabra say jafé jafé nit ki ne ci njaqare nga man ko ko dindil ya da dindi sa njaqare kep ko xamna sa mbokkum jul dafa am aajo dik wax amoko ko ko nga and nak mom ba aajo ja faju na fa ci sa aajo Allah geey kon nak kama tudiinu tudan nit ku nek la nga la ngay fay wala day wax ne li nga le bu la ko fayé mu le la nga le won mo baaxu ku topé wu kenn dula topé ku dul balé kenn dula balé ku ñu def kenn du baax kenn du la def la baax dégg maa ne warmaalewul kenn du la warmaal ku mën a doon nag loo gis xam ne yaa ko def kamatu diitu daanu lu waay leble moom lan lay fay lu li nga leble nag bu la ko fayee mën a xaree la la nga leble woon moo baaxul yàlla na yàlla dafa dégg ak toog ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك لله بعزيز وكن معيسا لنا من شر حسد مع شر فم وشر عيني الله وشر شر وشر القلق انسيم مع الجن وذوات سمي الله طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا وحب لنا رشدا وتوفيق يا الله ودمرا كل اعداء تدربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله اقول قولي هذا واستغفر الله